Anta. Anta am sa kii am sa kii daan bi. gis nga sagu bi ngay sagu nga war a bàyyi fii boobu fi sagu ba dee da ngay layoog yàlla bu mu màttu ñun dañoo lekk dara dañ faa fekk ki ñu doon seeti ñoo ngi nii bëgg a dee nga am kii Anta eh, boo xam sa desul nga may ma ci. Samba Rahmaani Jiba Jaxate kay ne wuram damaa war a dem salon nii. comme daal quoi eh, eh, tout tout. yéen yow saay saay. doom bu ngeen rusul yàlla ngeen mën a rus doomu aadama yi lu toll ni bëccëgu weeru koor te ngay wax ci mooy sa quatrième femme booy taxawal fii ci mbedd bi xam naa la te ni nga mel ci jigéen boo ko meloon ci diine ji kenn du la jiitu àjjana voilà père en parlant de diine waaw am na leçon bi ñuy wooye maanu waaw dese naa moo ci yow yu ma ñu déggoo yow waaw léegi dinaa la woo dinaa la def danaa la déglu <laughs> lu la jaaxal jaaxale ci doomu aadama rek woo ma parce que man psychologue laa ah. loolu laa jàng man euh, psychologue laa jàng xam doomu aadama xam melokaanam lépp lu muy solo yëpp dama koo xam. d'accord ah? kon moom mi waaw. ok waa koñ bi kaay leen xool ay na. suma ndey ma ah, jëndi woon ndogu. Ah, loo bëgg. ndogu. ah gaynde gi daa woor. gaynde fan la aan. yey. lii nag yaa ko moom. du ko laal du ma ko du ma ko laal Moussa la maire yow tamit. Ah, du ma léegi mënoo foo toll di joxe. Moussa ko laal. mais du dara li lettre de remerciement la rek. Ah? kon lii du xaalis et puis lii man nga envoyé ma ko WhatsApp. bu dee amul connexion. sama waa ji loo yor mën nga ko may. Eh. baax gën ma a defanteeg man la eh. baax. yàlla sa jàmm eh. la. koy seet yow man dama laa seet. lu ci sa yoon ci man. boo duggee di nga xeer. mbaa nga xëtee xeer. xeeri na dugal dugal. man duma géwél bu ni defar cicatrice ñaw man duma wor ba ngon jot di ndogoy xeer ak di xëddee xeer man géwél yaay pii laa xam nga lutax tax Wally dima way nan ma ganjol ganjol sa kër maam Fouta Tooro sa kër maam la. Y'a quelque chose. booy bi deful wal nat. ay way loolu amna lo ci daan def de. Ah. may mako doora def. ganjol sa kër maam. ku tataara anta man duma netatu duma mbuusum fël-fël duma persi su kanamee naa jënd cere lekk rek lekk rek